الله وفي الإسلام دين قول محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن wa adda amaanata albayaan wa nasaha al umma wa mahwa zulma wa kasafa al xumma an haadihi al umma wa tarakana ala mahajatin bayda layluha ka nahaariha laa yaziigu anha illa haalik fa salli llahumma wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin ikhwata al-iman fa inna aqwa ar-rawabit bayna an-nas al-ukhuwa al-islamiyya fa innaha tajma' bayna al-muslimin wa in kaanu min amaakin mutafarriqa wa bilaadin baciida wa jinsiyaat muxtalifa wa qabaa'ilun shatta qaala almawla jalla wa ala fi muhkami tanzil innama almuminuuna ixwa mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi ñun ñëpp nañu ànd yëg ne li gëna a dëgër li nu boole ci kaw suuf mooy mbokkoo islaam mooy mbokkoo diini fa inna aqwa rawabit bayna annaas al uxwa al islaamiya li gën a dëgër liñu jokkale li ñu boole ba tax ñu war a jàppalante ñu war a bëggante ñu war a ànd mooy lan mbokkoo islaam mbokkoo googu mooy li boole jullit yi fa innaha tajma bayna al muslimin moo dajale jullit ñépp boole leen ci benn buum daal leen di tënk wa in kaanu min amakin mutafarriqa donte ne dañoo nekk ci ay barab yu wuute ñii nekk fële ñii nekk fële ñii nekk fële bërëb yooyu li muy wuute wuute wuute ñun ñëpp danoo war a yëg ne lislaam moonu boole wa bilaadin baida même bu fekkee sunuy dëkk bokkul ñi dañoo nekk France ñi nekk Guinée ñi nekk Mak ñi nekk Amérique li dëkk yooyu di wuute di sorante yépp l'islam moom def ñoo jagale wa jinsiyaat muxtalifa même yaram yi li muy wuute couleur yaram yi bu ñuy weexee nekki tubaab ñii ñuul nekk africain ñii xonq nekk arabe ñii jaune nekk chinois couleur yaram yi li muy wuute wuute lislaam moom def ñoo dajale waaye wa qabailin shatta giir yi ci làkk yi ñi ay tukulóor lañ ñi ay séeréer lañ ñi ay ñi ay loolu yëpp l'islam moom def ñoo dajale ci benn buum kon nañu yëg ne islaam moo nu boole moo ñu boole ci benn buum buum googu ngeen di gis ci kurus per yi nekk téeméer benn buum boobu jàpp leen ñoom ñëpp tënk leen ba kenn ci moom kenn ci ñoom du mën a rëcc noonu la ñu islaam boole mbokk yi donte ne suñuy place dafa wuute donte ne réew yi dañoo wuute donte ne yaram yi dañoo wuute donte ne qabaa'il yi giir yi dañoo wuute lislaam moom daf noo boole sunu borom subhanahu wa taala ko wax ci suratul xujuraat aaya fukk ba muy aaya dix yàlla ne innamal muminuuna ixwa fi ñu bari ci nit ñi bu ñuy firi aaya bi dañ naan julli bi ay mbokk lañ waaye loolu hadis la moo wax al axul muslim jullit ñi ñooy mbokk waaye aaya moom dana way gëm yàlla yi ñooy ay mbokk ndax al muminuun la wax innama al muminuun way gëm yàlla yi kon ku gëmul yàlla bokkatoo ñi gëm yàlla la yàlla wax ñooñu ñooy ay mbokk mbokk nag yonent bi sallallahu alayhi laa fadla li arabi ala ajam wala li ajami ala arab bi wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bi taqwa sallallahu alayhi wa sallam nee na ngëneel daal nekkul ci man arab laa déedéet man arab laa rek maa leen gën déedéet ab arab gënul ku dul dara ku dul arab mooy ajam moom ngeen di wax fii ñag léeg-léeg ab sénégalais xoola ne yow ñag nga fekk fekk moom fàttane moom ñag la moom it yéen ñaar ñëpp ay ñag ngeen loolu mooy ajam mooy ku dul arab ajam nga borom bi nee na arab yi gënuñu ñi dul arab waaye ñi dul arab tamit gënuñu araab yi mu ne ku xonq gënoo ku ñuul ku ñuulit gënul ku xonq ngëneel gi daal borom bi nee na mu ngi ci ragal yàlla illa bi taqwa keroog ba bilaal gëmee yàlla ñëw bokk ci mbooloo islaam bokk ci mbooloo muminuun yooyu keroog la yàlla yëkkati darajaam abu lahab mi nga xam ne dafa xonq cur bokk ak yonent bi keroog la ko islaam daaneel ba bi mu faatoo safara la dem bilaal yàlla dugal ko aljanna kon mbokkoo gi du deret bu doon deret la rek yonent di mbokk Abaa Lahab waaye alquran moo ñu nettali tabbat yada abi lahab wa tabba ma agna anhu maaluhu wa ma kasab borom bi mu ne sa yasla naaran zaata lahab te mbokki yonent bi la kon mbokk amul njëriñ ana baayu ibrahim moo ko jur anamu ma nga safara ana nuux ak jab doomu nuux ak jabaram anañu kon mbokk amul njëriñ mbokk gi yàlla ne ñun moom lañu bokkoo mooy mbokk gëm yàlla ku gëm yàlla fu mu mën a nekk ci kaw suuf ku xonq la ku ñuul la ku weex la këlëru yaram bu mu mën a yor su gisee ay jullit yu gëm yàlla moo ñoom ñooy mbokk ragal yàlla la yàlla wax ne mooy ngëneel illa bi taqwa mu ne wal uxuwa al islaamiya laha xuquq wa waajibaat mbokkoo googu nag di mbokkoo diine mbokk yi ngalawaay bu mu nekk waxi kese bu mu nekk lu ñuy sol bu mu nekk nii rek lu ñuy laal bal dañ ko war a dund ñu yëg ne ñun ay mbokk lañ li nu boole moo ëpp li nu tàqale moo tax boroom xam-xam yi ne mbokkoo islaam dafa am ay aq dafa am ay devoir ay waajibaat yooyu bi ci njëkk an yakuna al muslim naasiran wa muinan li axiihi al soo waxee ne man gëm naa yàlla man jullit laa gëm naa yàlla foog nga taxaw di dimbali say mbokk foog nga nangu say mbokk wéeru ci yow foog nga nangu di leen jàppale yàlla subhanahu moo wax loolu ci suratul maida aya 2 mu ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan yéena ay mbokk ngeen kon dimbalante ci lan ngeen di dimbalante alal birr ci lépp loo xam ne dañu ne lu baax la albir waaw lan mooy loolu albir mooy mbaax yonent biñ ko laajee albir mu ne albir xusnul xuluq mbaax mooy nga rafet jikko ma diin mu ne ad diin xusnul xuluq kon diina mooy nga baax mbaax googu ngay jàppalante ak say mbokk nga nangu say mbokk weeru ci yow nga jàpp leen ñu jàpp la loolu lañu yàlla wax ne moom mooy mbokk borom bi ne ñu bu leen dimbalante ci bakkaar ak noonalante tey ku gis sunu réew mooy ñun jullit yi au lieu ñu dimbalante ci li yàlla ak yonent wax déedéet dañuy dimbalante ci mbon da bon bi nga xam ne maa la gën a bon dangay ngay dimbalante ci ay jullit a ngi fële nañ dem tooñi leen dangay ngay dimbalante ci jullit yi di tasaaroo di gën a ñàkk doole bal sax noono la la ñuy tas tey ci biir jullit yi noono pour jullit yi déggoo loolu mooy sunu problème tey tax jullit ñi tàqalikoo te xam ngeen ne yàlla waxoon na wala tanaaza'u wa tafsalu kon luy xew wa tazhaba riihukum su ngeen xëccoowee rek xëccoo lu muy def mooy dootu leen déggoo su ngeen déggoowul lu muy def mooy ngeen tàqalikoo te looloo dal jullit yi penku sow biir ak biti ñu ñuul ñi ñu weex ñi foo dem jullit ñi duñu ànd waaye tey ci àddina bi su jullit ñi nekkoon benn dànk su jullit ñi àndoon su jullit ñi joxante woon loxo kon kenn waxatu ko kon àdduna bi yëpp nekk nañ ay jullit kon àdduna bi yëpp jullit ñi jiite nañ ko keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiitee jullit yi jullit ñi nekk benn moom kenn mu nekk kilifa gi ñépp topp ci ginnaawam jullit ñi déggoo jullit ñi jàppalante jullit ñi nekk benn nga xam ne dañoo bëggante woon nekk benn ba ñett ànd nañu xeexi jihaad ñu jam ñetti nit kii daanu fee kii daanu fële kii daanu fa ko gën a sori ñoom ñett kenn ku nekk bañ ko jamee mu daanu lan lañ dégg muy wax naan alma may leen ma ndox ñu njëkk a dégg baat yi bi ñu demee indi ndox ki ñu njëkk a song ne ko pour ñu jox ko mu naan mu sëwe bi mu déggee moroomam bële naan alma dafa ne dem leen jox kale ñu daw dem ci moom mu dégg ki nekk ci kanamam naan alma mu ne dem leen jox kale ñu daw ci kële balaa ñuy yegg mu dee ñuy ñëwaat ci deuxième bi mu faatu ñu ñëwaat ci troisième bi mu faatu kenn ku nekk ci ñoom dangaa bëggoon sa moroom naan ndox mi dund yow nga dee wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa noonu la jullit ñi meloon mooy kenn ku nekk da ngaa yëgoon ne sama mbokk sama mbokk loolu lañ doon dund ñaareelu aaya borom bi wax ci suratu tawba mu ne wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bilmaaruf wa yanhawna an ilmunkar wa yuqimuuna alsalaa wa yu'tuuna alzaka wa yutii'uuna allaha wa rasul ulaika sa yarhamuhum allah inna allaha azizun hakim borom bi tabaraka wa taala nee na way gëm yàlla yu góor yi way gëm yàlla yu jigéen yi baaduhum awliyaau baad ñenn ñi ñoo war a yittewoo mbiru ñeneen ñi na ñi nekk boor bii ñii nekk boor bii ñu ànd jàppalante ci liggéey bii di liggéeyu yàlla ya'muruna bil ma'ruf nañ digle lu baax wa yanhawna an munkar nañu tere lu bon fuñ leen fekk wa yuqimuuna salaa nañu taxawal julli suñu amee alal wa yutuuna zaka nañu joxe azaka waaye loolu yëpp nag wa yutiwuuna allaha wa rasulahu nañ topp yàllaa kub yonentam xoolal ñi def lii ñi gëm yàlla nekk góor ak jigéen digle lu baax tere lu bon taxawal julli joxe azaka topp yàlla topp yonent borom bi nee na ulaayika ñii sa yarhamuhumullah ñoom la yàlla di yërëm kon leer na suñu bëggee mbokk julli di yàlla yërëm borom bi wax na nu ne mi ngi nii keno yaa ngi nii mooy lan jàppalante góor ñeeg góor ñi jigéen jigéen ñi ku nekk nga jàppale sa morom dimbalante rawatina nag digle lu baax teralu bon taxawal julli génne azaka topp yàlla topp yonent borom bi ne ulaika sa yarhamuhumullah inna allaha azizun hakim yàlla day moo not ci nguuram te ku xereñ la moom jalla jalaaluhu ñetteelu aaya suratul anfal wa in wa in yantasarukum fi ddin fa alaykum nasr borom bi bu jullit ñi taxawee tàllal leen ay loxo bu la jullit taxawee tàllal la loxo wuyul yéen a ngi fàtt fàttaliku mu'tasama ab araab bu jigéen moo nekk ci marché bi di jënd benn romain ñëw fekkoon muraayam daa di ci muuraay gi muri ndaw si mu ne waa mu'tasama waajib dóor ko pes benn waaye bu fekkee woon seen bi dem ci buur bi ne ko dëkk sàngam laa bàyyee ko xabaar laa la indil benn yéeféer moo fekk ab jullit bu jigéen ci marché bi waxuma la dafa yem ci muri ko waaye da ko pes mu ne ko bi mu ko pesee lan la ndaw si wax mu ne ndaw si dane waa mu'tasama al mu'tasam billah moo nekkoon keroog buuru jullit yi mu ne biñ ko pesee sa tur bi la yuuxu mu'tasam billah daal di jóg taxaw mu yuuxu yuuxu boo xam ne mu ne wallahi azim préparé leen ma armée boo xam ne première soldat yi ci ñoom lay nekk genn gi ci man lay nekk armée boobu kon ñaata nit lañ mu ne wallahi su ma wuyuwul ndaw si woo bi ma woo kon man nekkuma ko gëm yàlla tey jullit yi jullit day woo mbokk jullitam falaa mu jiib adduna bi yëpp jullit ñaa ngi yuux xoolal siri tey daanaka ñooñu ñuy woowee ahlu sunna ci siri pli amatul rey nañ góor ñi violé jigéen ñi semaine bi passé bi ma mujjee gis benn ifta keroog nelawuma guddi benn waaye moo laaj benn borom xam ne ko est-ce que ñun tey am nañ droit rey sunu jigéen ñi balaa ñu leen di violé ndax man jullit comme xam naa ne dañ ma nar a rey est-ce que du ma rey sama waa kër ba pare ma taxaw xaar nag buñ ma reyee baax na lu tax parce que damay ragal suñ ma reyee après dañuy violer sama waa kër est-ce que dagan na ñun tey balaa ñuy dee ñu dajale jigéen ñi rey leen ba pare ñun ñu doog a dee ci ay jullit tey jullit mooy rey mbokk jullitam jullit moo koy toroxal jullit ci ay turkat ay tur ñii ay liilañ ñii ay lee ñu fàtte ne garab gi cosaan gi mooy al islam garab gi bi mu màggee nag la am ay branche ku nekk toog ci branche bi ñuy dagg garab gi nga naan sama yoon nekku ci loolu mooy sunu jafe-jafe loolu mooy sunu problème ñu topp tur yi tur yi ñi ay lii lañ ñi ay lii ñi ay lii ñi ay lii lañ di rente suñu biir ñu fàttee ne al aslu huwa al muslim huwa sammaakum muslimuna min qabl yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadis Bukhari boo xam ne Anas ibnu Malik moo nu ko nettali sallallahu alayhi wa sallam ne unsur axaaka zaaliman aw mazluuman dimbalil sa mbokkum jullit suñ ko tooñee ak su tooñee dimbalil sa mbokkum jullit noo koy dimbale yonent sallallahu alayhi wa ne suñ ko tooñee dimbali ko su tooñee dimbali ko sahaaba yi yonent ah, suñ su tooñee de xam nañ nuñ koy dimbalee ndax dañuy jël suñu yat taxaw ci wetam waaye bu tooñee nag yonent bi ne ngeen jàpp ci loxo bi xamal ko moo tooñ yóbbu ko kër ga mu ñibbi noonu la ñuy ab julit ñaareelu àq an laa yazlima al muslim axaahu bi ay nawin min anwaai zulm jullit bu mu tooñ bokk jullitam ci bépp façon tooñ ci wax ci xool ci jëf lu mu mën tooñ sa mbokkum bul fell ci àqam dara même ci nuyoo bu la nuyoo amoo droit denc tontu bi te fayoo ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ala inna allaha harrama alaykum dima'akum wa amwalakum ka hurmati fi baladikum hadha fi shahrikum hadha keroog ca Arafat ca naaj yonent bi alayhi salaatu salaam dafa taxaw di leeralal julli ñi lan mooy àq seen biir mu ne maa ngi leen di wax ne yàlla araamal na seen deret ak seen alal deretu jullit kenn waru ko tuur deretu jullit waru ko tuur xoolal tey bi ma dégg benn sénégalais bu dëkk Matam bu ñu rey tey Gabon rey ko ba pare dugal ko ci frigo jël ay jën teg ci kawam fa mu doon liggéeyee fan lañ jëm chaque jour nga dégg ñoo ngi rey ñoo ngi rey ci biir dëkk bi ñoo ngi jam ñoo ngi léegi nit ñi ay arme la ñuy doxantoo jullit yi ñooy rey seeni moroom yi jullit mbokk yi ab jullit deretam kenn du ko tuur alalam kenn du ko jël yonent bi neen dafa araam ka xurmati yowmikum haada keroog ba mu koy wax mu ngi ci arafaat ne bis bii ni ko yàlla araamalee mu orm am orma noonu la deretu jullit ak alalam araamee mu ne fii baladikum haada ci dëkk bii di makkatal mukarram fii sahrikum haada ci weer wii di weeru aj nga xam ne lépp lañ ci araamal xeex dañ ko araamal ci weeru aj yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ci hadis muslim boo xam ne abi hurayra moo ñu ko nettali mu ne al muslim axul muslim la yazlimuhu wala yaxzulhu wala yaxqiruhu attaqwa haahuna wa yasiru ila sadrihi sallallahu alayhi wa sallam salaasa marat yonent bi ne bi xasbi mriin min alchar an yaxqira axaahu muslim kullu muslimin alal muslim xaraamun damuhu wa maaluhu wa irdu yonent bi nee na jullit jullitay mbokkam jullit amul ci kaw suuf ku dul sa mbokkum jullit moo tax ndeysaan amu na événement yu fi passé ca xeexu Sénégal ak Mauritanie ba waa ji nee na dañoo tiim benn naar di ko rey di ko dóor ay jaasi mu naan laa ilaha illa waa ji naan reyal naar mu ne jàng ngi koy dóor ay jaasi mu ngay wax laa ilaha mu ne ñeneen ñi naan rey leen naar la xool leen baatu laa ilaha illa allah naka ngay jàkkaarloog nit di ko dóor jaas yi wala nga koy dóor yàq wala nga koy dóor fetal mu naan laa ilaha illallah ngay wax naan naar la wala tukulóor la wala séeréer la wala bàmbara la laa ilaha illallah Seydina Ali nee na damay xeexal benn waay maa ngi dóoranteeg moom jaas yi jaas yi di tàkk di génne ay étincelle ñuy dóor di dóor ba càgg ma dóor ko ak sama doole jaaseem tëb dali fële mu ne waa ji ne laa ilaha Seydina Ali nee na ma sànni sama jaasi xëcc ko taf ko sama dënn gaa yi daal di yuux ne Ali dafa ragal dafa ragal mu ne man duma ma rey baat bu gémmiñ guy wax laa ilaha illa allah gémmiñ guy wax laa ilaha illa allah sama jaasi du laal waa jooju daa ñun nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit jullitay mbokkam bu mu ko tooñ bu mu ko gàcceel ragal yàlla yonent bi nee na fii lay nekk mu daal di joxoñ ci dënnam wa yasiiru ila sadrihi ñetti yoon yonent bi nee doy nag mbon bi hasbi imri'in min ashar doy na nit nekk ku bon rek an yahqira axaahul muslim mu xeeb mbokkum julitam saa yoo gisee nit xeeb ko saa yoo gisee ab julit xeeb ko rek yow sikki sàkk nekkul ne yow ku bon nga julit du xeeb mbokkum julitam yonent moo ko wax bi hasbi imri'in min ashar an yahqira axaahul muslim sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu muslimin alal muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irdu jullit bu nekk say mbokk julit araam na ci ñoom ñu tuur sa deret ñu jël sa alal ñu yàq sa der xoolal tey yàq der waxuma rey wala jël alal mais yàq der xëy rek ñu daal di tasaare ci journaux yeeg rajo yi wax diw diw diw diw dëkk bi yëpp sa der yàqu foo génn nit ñi di la xool fekk dara xewul fekk dara xewul benn waaye dafa jël nen dénk ko soxnaam mu ne ko nen bi bu tojee rek damay dee soxna si woo benn xaritam ne ko sama jëkkër daa nen moo ngi nii kooku dem daal ne jëkkëru diw daa nen ñaari nen kooku dem ne ñetti nen keneen dem ne ñeenti nen balaa ngoon jot waa ji nee na man dey nee nañ ma damaa nen saako ku jëkk rek yokk ku dégg rek yokk ku dégg rek yokk ba waa ji sax dafa toog ba caag muy laal ginnaawam di laal di seet ndax nenu ndax dafa tiit muy laal ginnaawam di seen ndax ay nen génnul ndax tiit ndax information bi nu mu tasaaroo yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa naziran wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira mbokk julit yi ñetteel bi min lawazimi al uxwa al islamiya an yarhama baaduhum baada wa yuhibbu baaduhum baada ñetteelu tomb ci luy wane aqu mbokkoo ne ñun ay mbokk lañ li war ci mbokkoo islaam mooy ñu yërëmante jullit day yërëm mbokk jullitam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yërëm leen ñi ci suuf waa asamaan yërëm leen suñu bëggee waa asamaan yërëm ñu fan lay tàmbale mooy dañuy yërëmante yàlla ba muy tagg sahabatul kiram lan la leen tagg muhammadun rasulullah walladina amanu maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum allahu akbar saxaaba yi ni ñu bëggantee woon ak ni ñu yërëmantee woon amul benn xeet bu koy dundaat ci kaw suuf yonent bi alayhi salaatu wasalaam may nañ ko bopp xar ab nit rendi na xaram ba pare ne bopp bi yonent bi laa ko yéene jël bopp bi yóbbu ba yonent bi bañ tegee bopp bi waaj a dem yonent dafa jël bilaal jëlal bopp bi nga dem jox ko Seydina Aboubacar nga xam naa ne gëj naa lekk yàpp bakar bi bopp bi di yegg mu woo doomam Abdallah ne ko jëlal nga joxal ma ko Omar bi kooku di teg mu woo doomam Abdullahi ibnu Omar ne ko joxal ma ko Ousmane Ousmane woo benn jaamam ne ko yóbbul ma ko Ali Ali woo doomam Alxasan ne ko yóbbul ko sa maam fan la jóge ci yonent bi fan la delluwaat sallallahu alayhi ci yonent bi waaye tey bu ñu ko joxoon kenn ci ñun naan danaa supp de ku la ne asalaamaaleykum sax nga ni nekk mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wax na ci hadisu Nu'man ibnu Bashir mu ne masalul muminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim masalul jasadi ida shtaka minhu uduwun tadaa lahu sairul jasadi bisahari walxuma sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit ñi ni ñu war a mel way gëm yàlla yi ni ñu war a bëggante ni ñu war a yërëmante ni ñu war a lewetante mu ne masalul jasadi dañoo war a mel na yaram yaram ay cër ñoo ci nekk bët bakkan gémmiñ tànk loxo biir xoolal benn bu mettee da ngay xëy sa bopp metti yaram bi yëpp ay tëdd lu tax noppi demul liggéey lu tax bët demul liggéey lu tax tànk doxiwul taa tànk méttiwul de diggante bopp ak tànk distance bi sori na wala soriwul lu tax bopp ne damay metti tànk tëdd gémmiñ mënatul wax bët mënatul xool ñoom ñëpp ñu ànd lan la ñuy solidarité parce que bopp nee na damay métti ñoom ñëpp dañuy toog yonente bi nee na jullit ñi noonu lañ war a mel xoolal misaal bu doy waar bi sallallahu alayhi wa sallam misaal ñu xoolal li leen di wan ne yonent bi dëgg-dëgg yonent la yàllaa ko yónni xool leen misaal bi yaram bu benn cër méttee yaram bi yëpp solidarité yonent bi ne jullit ñi noonu lañ war a mel ci bëggante ci yërëmante ci lewatante ci ànd mu ne benn cër bu la jàmbatee yeneen cër yëpp yëg mettit bi waaye yeneen cër yëpp yëg feebar bi waaye hadis bu gën a doy waar hadis Buxaari Abu Musa al Asari nettaliñ ko mu ne yonent bi nee na al muminu lil mumini kal bunyaan yasuddu baaduhu baad yonent bi julli ñi dañoo war a mel ne tabax tabax birig yi dañoo jàppalante waaye xoola am na birig yoo xam ne ñoom ñoo jéngu dugg ci biir yenu fondement bi ñoom ña nga fa soo xoolee lii ci kaw nga gis mu rafet fekk am na ñu jéngu ñu ngi ci biir ñoom ñoom soxlawuñu feeñ ñoom soxlawuñ ku leen gis ñoom soxlawuñu raax ñoom soxlawuñu peinture ñoom soxlawuñu karo ñoom lan la ñun nañu yenu affaire bi ba mu taxaw yonent bi jullit ñi noon lañ war a mel xoole ñeneen ñi kenn ku nekk bi nga feeñee da ngaa jàpp sa morom imagine leen tabax bu ñu ko doon tabax maçon bu bu benn birig birig bi daw taxaw fële mu indiwaat beneen beneen birig bi ne kii du ma laal kañ la tabax bi di jàppoo waaye yonent bi mbokk yi hadis yi muy wax njàngale yi muy jàngale lii la defoon suudee ko saxaaba yi yonent bi lii la suudee woon sahaaba yi moo tax sahaaba yi kenn mënalu leen woon dara fu ñu taxaw indil yàlla ndam fu ñu romb ñu ñee leen ku leen gis ragal leen maa la saf hadis yaa ngi fi aya yaa ngi fi ñu ngi koy firi waaye dund bi moo amul dund bi dund bi moo amul dund bi loolu mooy suñu problème ñeenteel ci mbokkoo ci diine mooy an nusxu laa yabiir fa yansahu lmuslim axaahu lmuslim fii amri diinihi wa dunyaahu jullit dafa war a nangu ñu koy laaya biir laaya biir googu ci sa mbiru àdduna ak sa mbiru diine xoolal tey ci wàllu àdduna rek lañu nangu ko wax ak ñun bu benn waaye ñëwee ne man vraiment mun naa laa jàppale ci sa avenir nangam ak nangam lañuy teg foog nga def formation sàngam foog nga jàng sàngam foog nga def nangam foog nga ut këyit nangam da ngay nangu waaye su jullit ñëwee di wax ak yow ci wàllu diine ah non da graaw rek bàyyi ma nii rek yan saa sa nga koo xam ne da ko naan lii ngay def day boo ci tuul boo dee safara nga jëm mu ne waa baax na naa dem safara baax na baax na safara baax na naa fa dugg loolu ku koy wax mooy ku réer rek dañoo war a xam ne jullit warul seetaan ay mbokkam tey kenn ci ñun chaque jour dañ koy wax soo gisoon ku sol yére yu weex tal ba ci dàll yeeg kaala geeg mbax gi waxuma laa yére yi mu bëgg a toog fu am huile te xamoo ko ndax da koy bàyyi mu toog kenn ci ñun laa soo gisoon sol yére yu weex bëgg toog fu am huile gisu ko mu yëkkati ay yéreem bëgg a toog foofu nga xam dañ faa sotti gutti huile ca yére yu weex la sol même bu soloon sax yére yu xonq doo ko bàyyi mu toog ci xamoo nu mu tudd xamoo kuy papaam xamoo kuy yaayam xamoo fu mu dëkk xamoo jullit la xamoo du jullit waaye doo bàyyi mu toog ci koy xëcc ba mu bëgg a daanu soo ko nee lan la su la nee lan la nga ne ko xoolal fi nga bëgg a toog allahu akbar kan ci ñun dugg safara nanguwoo waa ji toog ci huile nga bëgg mu dugg safara mbokk yi loolu moo gën a yéeme nanguwoo waa ji ay yéreem takk nga bëgg yaramam lakk te yére yi nanguwoo mu takk nañ xoolaat suñu bopp nañu xam ne jullit jullit ay mbokkam yonent bi nee na jullit na laaya biir mbokk jullitam su fekkee dafa réer na ko na ko wax islaam na ko jàngal dëgg dañu laaj al imam Muhammad Ghazali bu ndaw ñaari Muhammad Ghazali la dafa am ku mag ak ku ndaw Muhammad Ghazali bu ndaw dañ ko laaj rahimahullah benn waaye ñëw rek ne ko yaa cheikh maa hukmu taariku sala lan mooy atte ku bàyyi julli mu ne hukmuhu an naaxuza bi yadihi ila al masjid waa ji ne xulli di ko xool mu ne ko kun kun daaiyan qabla an takuna qaadiyan tey laaj boobu bu ñu ko laajee benn jullit lan mooy atte ku bàyyi julli maa hukmu taariku salaa ku lekk looy xaar mooy finnaar ñun ñëpp lool la ñuy xaar waaye xoolal moom xikma bi mu am lan mooy atte ku bàyyi julli mu ne ngeen jàpp ci loxo bi yóbbu ko jàkk jàkka ja mu julli ci gaa yi ne xujj mu ne leen nekk leen ay wootekat balaa ngeen di nekk ay attekat dañoo war a nekk ay atte ay wootekat qabla an nakuna du'a euh, qudaat la budda an nakuna du'aat balaa ñuy juger nañu woote ba pare nañu wax islaam nañ ko leeral nañ ko won nit ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan jàngale sahaaba yi ñu xam ne ñun mbokk yi ay jullit lañ ay mbokk lañ jullit loo bañ bañ sa mbokk julit buy julli lu muy jàng alxuraan yow looy jàng alxuraan fu ngeen di jublu yéen ñaar kaaba yéen ñaar lu ngeen di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon kay li leen boole fan ngeen di jublu kaaba ga li leen boole ak li leen tàqale tey fexe nañ ba julliti Sénégal mënuñu ànd ñu toog ci benn table mënuñu mënuñu subhanallah fan lañ jëm su fekkee ñun mënuñu ànd mënuñu bëggante di noonoo ci ay mbir yoo xam ne ñëpp ci bakkan rek lañ ko teg ci bakkan ci bakkan koo ne laa ilaha illallah muhammad mu bañ ci bakkan rek fan lañ jëm jullit boo gis buy dem jàkk sax mu ngeeg mbol de di xaar jàkk ji ku sëqat mu ne ko ko teel ci bopp bi walla buy dem jàkk mu ngeeg yéene bu bon xaaral tey ba ma dem rek ba kenn xool waay te xoola yéene boobu te yaa ngi julli ji fan nga jëm foo xam ne yonent bi saa salaam bu taxawoon day wax sàppe bi na mat saaq bi saaq manka bi alal mankab mu ne laa tax taxtalifu yonte loolu la daan wax mbagg yi na sësoo yeel yi na sësoo bu leen wuute dangay gis ku taxaw ci sàppe nga ni ko saawaay jege sin mu ne nii waaye julli sa julli julli sa julli rek ta nga bama ci jàkka lañ nekk néegu yàlla te xoolal li ci doy waar mooy kooku tey su génnoon fekk la ci benn néeg nga toog daa di ngurfaañu ci suuf summi sa mbax ne mu ñëw fekk la nga toog mu ne la asalaamaaleykum nga mu ne yow sawaay da ngay ñëw fii ndege nga ne ko waaye man kii sum mu ne bëgg naa la ngi bëgg naa la yow tey nag tey bëgg naa la bi ngeen dajee néegu yàlla bëggoon nga ko ngeen dajee néegu nit nga bëgg ko te néegu yàlla bi nga ko dajee sa noon la woon ana mbëggeel gi ñuy waxante mbokk yi man de maa ngi leen di seedeel ci kanamu yàlla ne dama leen bëgg yéen ñëpp maa ngi leen di seedeel ci kanamu yàlla ne man dama leen a bëgg yéen ñëpp yal na leen yàlla bëgg il faut ñu bëgganti yonent bi nee na laa tadxulul janna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahaabu ala adullukum bi shay'in wahid ida faaltumuhu tahaababtum afsu salaama baynakum yonent bi nee na da ngeen bëgg dugg àjjana ñu ne waaw mu ne du ngeen dugg àjjana de lu dul da ngeen gëm yàlla da ngeen a bëgg gëm yàlla ñu ne waaw mu ne du ngeen mën a gëm yàlla de lu dul da ngeen a bëggante kaay leen ma wax leen benn mbir boo xam ne bu ngeen ko defee rek bëggante mooy lan mooy dee leen nuyoo ku dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko yonent bi dafa ne même jullit bu tukkee su ñowaatee du yem ci nuyoo mais doqoo leen doqoo leen doqoo fenn rek lañ ko tere mooy ci dëj kenn du dem ci dëj di doqoo ataanuq mam noo indal janaza dañ ko tere amma nuyoo doqoo joxante ñaari loxo yonent bi nee na wal muslimaani iza tasaafaha lam yabqa baynahuma zambun illa saqata ñaari jullit bu ñu dajee nuyoo ñaari loxo tegante dënn yonent bi nee na bàkkaar des lu dul yàlla waddal na ko bàkkaar desatu fa arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina batilan warzuqna ijtinaba allahuma ya musabitu alqulub sabit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluk an tarudduna ila dinik maradan jamila allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min xizyi dunia wa azabi alaxira allahuma ya haadi ihdina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim min annabiyina wa siddiqina wa sohda wa salihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين qumu ila salatikum yarhamukumullah Dios, no te